tey ji li li abu wax boo gisee yëpp farba ngom yi ñoom ñu jël ko yenn ko farba maa ko tere wax dafa ne woon euh, day génn def émission wax man ko déedéet ndeysaan doo wax waaw ah, jarul waxloowu ma la hmm. ay soxnaam ñuy sama xarit surtout nag Adja Mbaye nga xam ne maax moom ñoo bokk papa ñuy euh, papa Hadj Mansour si ah Hadj Mansour Mbaye nga di di hmm. nuyu bu baax sama si nawle la ñuy wattante ndax ñaareel la may ñaareel donc Eh, fii dara ñaawu fi lu nit mën a mën a ñaawal nga koy ñaawal xam nga lu am solo mooy li ma wax rek ne eh, ci asaka buy génn la ndax màkk bi eh, lu yàgg la ñu finaliser bu yàgg depuis longtemps xanaa war na mat léegi bu soretul wax dëgg yàlla un an ñu ñu ko waroon nañoo dem bu yàgg nag ba sëñ bi amee taw féex lañu waroon a dem waaye ci ay mbir ñu ni kon man maay dem donc euh, yëf yi Farba yi dañ si sant yàlla xam nga si sant yàlla mooy tey ku def def vingt quatre ans ci métier bi di jigéen di xale kenn mosulaa déggal dara hmm. kenn mosuloo dégg dinañ ma xasee lu ne waaye Aïssatou Diop Fall caga la kenn mosu ko dégg ci àddina hmm. kenn musul dégg li li ñuy waxal jigéen ñu bëri fii Sénégal jigéen journaliste yu bari aqulaay taalaa rek la ñuy wax ñun ñëpp ay jullit la ñu nag mm. moo xam chrétien la ñu gëm moo xam Jésus la ñu gëm wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngeen ma may cinq minutes xaar une minute rek ma mm. tëj foofu waaw xaar une minute ma tëj foofu rek Aliou c'est important de le dire ndax comme ni ma wax rek ñun ñëpp ay jullit la ñu ñu ay croyant la see c'est le mot consacré mooy tey ñu nekk ci profession bi vingt quatre ans commencé fi mbapat kenn mosu wax na Aïssatou Diop Fall man mën naa wax ne ñaari far ma sa am ñoo doon sama borom kër kenn képp koo xam ne nii mos ngaa xam lu Aïssatou Diop Fall woddoo yëkkati sa loxo nga taxaw ci tale rek comme léegi yëpp ñëpp lépp yëpp dañuy génn nañ génn ci tale daal di ne Aïssatou Diop Fall mos naa ko doxaan hmm. wala xam naa fu mu dëkk mos naa ñëw kër wala mos naa fekk ci hôtel xam nga ñuy dem ci ay hôtel hmm. hôtel yi ñëpp a ngi fa ku ma mos a gis ci hôtel man hmm. moo xam fii ak ci réew yëkkati sa loxo góor mu mos a taxaw ne nangam taan naa Aïssatou sa Fall te duma borom këram yëkkati sa loxo Hmm. ndax def naa def fi vingt quatre ans di jigéen màggee fi yaroo fi lu ne xew fi est-ce que bañ nekk célibataire lu ñu deful duñ xaar ba yàlla may nu borom kër ñu koy def ndax bu ñu nammee def lu bon ah de dañuy génn dañuy divorcé nag ndax mariage c'est sacré sëñ Maodo la may papa Maodo si da baax ki ñuy dem di rang ñoom pour gis yow moo bi may yóbbu nii si sijaada bi may yóbbu màkka nii ak kus ba may def ma ne moo ma ko ñu génneel ci loxoom yox euh, fat si hmm. ma dama laa wooye Jacqueline sama ko bëggee tooñ hmm. Jacqueline laa koy wooye donc ma ne barki démb rek ma ànd ak sama fekk da mënoon jox wér de sama yaay mun la ne ak bàjjen ndax yaa fi dafa ma dafa dafa nekk sama yaa su fi soxna euh, papa Maodo hmm. da sama sama wasila ci ñaari mbir ne man di sama jigéenu papa di sama bàjjen man bàjjen laa koy woowee rawatina mu nekk sama yaay di euh, euh, ndax papa Maodo si da baax moo tax ma chaque jour yow di nga bëri bruit ndax maa uuf ba nga juddoo. ndeysaan maa la uuf. sa nopp ñetti yoon ay sa tu jóg faat foog nit ñi dégg di nga jeng waaye doo daanu bëkki dem ako at na ma ko ndax sam papa man kilifa la ci àddina ndax macha allah haut fonctionnaire laak yooyu yëpp waaye papa Maodo si euh, papa sëñ Abdou Aziz Sy da baax sam papa bok na ci bamu nekké préfet yoy moko doon bindal français té ñom ñep xam ay intellectuel lañu mm. euh, papa mo dara sam papa moy moy magam ñu ñëg mooy taawu señ señ sëñ Abdou Aziz wala da mm-hmm. sama papa la muy mokadam seydou Hadj malik si papa do si da baax tuddu ma tudd may sama ñaar borom kër yi ma am yépp papa do si da baax may bu njëkk bi si Lamine ñass papa ngi tok boobu gën yaram mi gën na ci wal faji ndax damay dégg nit ñi doo wax xamuñu lu tax Sidy Lamine Niass defee ko ci biir ci bureau ndax daf ma ne yow maa la yar yaay sama taaw de fait mhm. wal fajiri bii nga teddee fii la la nit ñi xamee dinaa la defal loo xam ne du fay ci àddina ñu mu ne wal fajiri ndax wal man li ma mën a wax ci Sidy Lamine Niass su ma taxawee ne kenn xamu ko man maay doom Sidy Lamine Niass keroog Pape Ahmed Khalifa Niass loolu la ma wax nee na ma man damaa fekkee papa Ahmed Khalifa Niass mi ngi may dégg. ndeysaan. nee na man may consultante chaque jour ñu watante commenté actualité nee ma yow mo tax ba may woo ma dima wax ci Cheikh Niass bala mo wax Cheikh nama wo daf ma wo nama yow maax Sidi Lamine ño bok nday ak bay ma nàmp jox ko waye yow dama bëgg nga xamne na adina xamne na. yow Sidi Lamine Niass moy sa papa sam papa bima jur daf ko daf ma may Sidi Lamine Niass. papa Maodo daal di ne Sidi Lamine dama la jox cër bi mhm. ndax yaay sama mag ma jox la sama parce que man papa Maodo ma la ñu bàyyale mu ne mu jox cër bi Sidi Lamine Niass Sidi Lamine ba ñuy maye moo jël moom moo defal carton d' invitation sama xew moom rek Sidi la passé plus de vingt millions ci laa ci laa mës sa xewee ci ci laa mu jeexee ndax ma du ma nitu xew man du ma dem xew ñëpp xam nañ ko duma dem xew kenn mësuma gis ci xew man bu dee xew naqar damay bàyyi ci tooy tooy laay maskaw génn nag kii du ma mbedd bi kenn mënu ma romb ni xàmmee ndax ijab laay sol mm-hmm. loolu nag gëm-gëm la du lu ñuy wax ci kaw mais gëm-gëm la man fu ma romb ci mbedd nit na kii Aïssatou Diop Fall lu jafe la ndax ijab laay sol kon tey si Lamine lu tax mu mayee ma ci biir Walfadjri daf ma ne Walfadjri bii ma la may ma am kër kër gu baax nag sama kër papa ak sama kër yaay kër gu baax la mm-hmm. ñu ngi sant yàlla waaye papa moo si baax château la yor dafa déplacé ak ñëpp mu xadam ñëpp ñëw ñëpp ñëw Walfadjri parce que Sidi Lamine dafa ma ne fii laa lay defaree loo xam ne du dañ daf ma def daf ma defal ñaari événement nit ñi benn bi fàtte beneen ba te beneen ba mi ngi daw ba tey ci Walfadjri xëy na sama sama pare ñu dind ko waaye dama koy wax ndax tey mooy mujj mujjantal bi dafa ma ne dama lay fii laa mayee Walfadjri ndax fii nga ma defaree loo xam ne Walfadjri génération ñoo fi jaar waaye sa génération dama ko fàtte ndax yow yaa fësal li ma gëm mooy xale ak jigéen ma dénk la sama kër gii hmm. ba nga fi nekkee ba tey pay wal fajiri pay pay pay mu ne ma fii nga teddee fii laa lay teralee hmm. ma defal lu kenn mësul defal ci nit ci àddina mooy bërëb bi ngay liggéeyee ma sargalee la ko dara la ko si Lamine Niass bañ may jël jànk ndax sama premier borom kër boobu mi may dégg dañoo dañoo tas divorcé man ku ne xam ne duma fen bay naa defoo waaye moo ma jël jànk docteur Diela Niang mii gynécologue na fu ñëpp dem laaj ko mu may dégg teew laax nga gis man damaa ragal ba nga xam ne moom moo dindi virginité bi médicalement ñu ngi may dégg Sidi na ma moo tax Sidi ba may may ci xew ma Lamine moo doon jokkalante Lamine Samba chaque jour mu ni man ci man la njëkkee am million Sidi Lamine dafa ne Aïssatou Diop Fall mi mun naa ko seedeel te su ma ko waxee duma ci am benn bàkkaar jànk la. parce que. ci digg Walfadjri kilifa yi fa nekkoon kilifa képp ku doon kilifa Sénégal yaa ngi toog si la moo invité Assane Diouf mi tey nekk Oustaz Assane Diouf mi nekk directeur des programmes ma nga fa woon moo joxe carton d'invitation yi si la mi presque dépensé na plus de vingt millions ci xew bi boobu benn boobu moo événement mais mais beneen bi ñu ngi ngay gis ma def sama rasta sol sama benn robe def rasta yi jël trophée prix ba dafa ma ne yaa koy yëkkati ndax sa ndam la ci yow laa amee ay prix ci law yow la télé bi tàqee wal fajri créé wu ma quotidien ba damaa dabe ci rajo bi waaye télé bi ci kàttanu yàlla mbaa xam ah Aïssatou Diop Fall ginnaaw yàlla su yàlla suñu borom bi ak li yàlla may Sidy Lamine Niass ah man nag moom dafay du ma wax du wax kat nag waaye ñu lépp rek siraatal mustaqiim lañ ko teg kon ñaar yooyu ku mu doyul misaal leneen doyul la misaal kon bu ñu commencé ci loolu duudu ba fi ma nekk may jigéen di xale lu ne xew fi ci Sénégal ñu déggal ku ne man kenn mënul wax ci àddina ne Aïssatou Diop Fall romb naa ko ci hôtel kooku mës a gis fotol nga indi teg mu dugg ci ay chambre ak yu ni mel wala diw mii góor yëkkati loxoom ne kii sama sama gàll la woon wala def naa man farantuuma gàllantuuma ñu wax ko musul am ndax ba a ñu génneel ko waaw ñëpp góor lañu ma ndax man copain laa man ñëpp góor lañu ma jàppee kon tey mm. bu dee dama dama def yëpp formaté aju màq yëpp ba yëpp pare yi génn yëpp doog génn ndax ba ba ma defee ba ma ba ma tëjee fayee lépp ma yëfu màq yi yëpp ci la yëfi farba ngom bi commencé loolu aj bu nangu la ñu ngi sant yàlla asaka biy génn la ci la sàcc yi feeñee ci la ci la ci la ci la mhm. loolu dañ koy sant yàlla suñu borom ndax man maay sël jigéen wax journaliste yu góor tey jii Bachir yow yàgg duudi ñii bu doon lekk ngeen wala Abou Diallo du ngeen sañ a wax ndax fii ñi fi lekk waxuñu kon Aïssatou Diop Fall di jigéen te jigéen la sama yaay di wax sër bu weex la ko dafa yomb may jigéen ose toog téye micro bi caméra mm-hmm. may wax lu ma saf ci réew mii di waxal objectivement li ma xamal ak sama jàngat di ko wax ci homme politique bu mu mënti doon moo xam boor bi nga féete wala boor bal nga féete fi ma jaa maa fay toog en direct di waxal futur média di waxal nduur nduur yi su ma amee fit boobu c'est parce que damaa set c'est parce que lekkuma du ma caga waaw kon ku ku bëgg nag koo xam ne dañ dañ la doon rëbb di yàqamti moo tax man dong la ñuy waxal dara safuma parce que xam nga xam nga lu tax xam nga lu lay metti maag yow waaw mais yow yaante yow góor nga nga jigéen jigéen jigéen buy sëy yor njaboot yor ñu taxawal na la de waay ay sa du juutal yàlla xam ne dara méttiwu ma ci parce que xam nga lu lay mooy loo def ndax kuy def lu bon doo toog fi bëccëg nar a kàmm de micro yi taxaw ngay woote osé woote devant des gens kuy def lu bon fi xam nga nu nu may wax da dañuy gëm yàlla te wóoluwuñu ko mm-hmm. te ñemewuñu dëgg du ñu wax dëgg nit da nga koy bañ waaw da ngay bañ nit waaw da ngay bañ nit ba fàtte yow ne doo ko woo non boo doodu da ngay bañ nit mm. viscéralement te mosoo gis xamoo ko yow nit ke dee def liggéeyam nga bañ ko ci te liggéeyam lay def yoo koy nga kontaan ci modèle bu ko dal benn ñaareel bi mooy nga toog gis dëgg mu leer ni lii dëgg la nga ne noo xaaral ma volontairement ma gëmm ji du lu bon ndax kuy def lu bon fii ci Sénégal da ngay làqatu dugg sa néeg fa tëj bunt caabi hmm. téléphone bu sonné woon sax bu doon dama dem defkat lu bon laa téléphone bu sama gis Farba Ngom mais du ma ko décroche devant public vraiment waaw nga osé décroche dafa haut-parleur non ku devant tout le fii waaw fii gis ko nii jàqarañ mais ngeen taxaw waa juutal la man leen maa tey waaw parce que man lu ma nëbbul yàlla suñu borom du ma ko nëbb doomu aadama man dara safuma ci continuer leen dina mu dem continuer di ma wooye Aysatu juutal juutal faal man nangu juutal ba dama gis nga juutal ba mm. dama kaa nangu et puis dafa tombé sax xam nga ko créé juutal boobu mais dafa riime ADF Aysatu juutal faal ma assumé ko nangu naa maa tey <laughs> waaye nag ah à partir de maintenant nag ndax ndax ndax jëlee ngeen ma sama bàkkaar yëpp 10 pour cent yi ma desee moom laa yóbbu bàyyi ko fa mais dale ma wooye ko aja ay sa juutal faal ma nangu ko garaawul problème garaaw déet ak ku ko jaral ku nekk sañ a toog di di tuumaal di bàkkaar ci loo xam ne yow mu ne mu a yow tey fi fii ñi def lu bon ñii fi tuddal hmm. ñoo dañoo làqatu nga kii sëy yor doomam yor njaboot yor ay employé bëccëg nar a kaam public micro team yëpp taxaw ngeen naan waaw yo la man sama rakk yi ñoo maree waaw ñëpp xam nañu ne da ngay saaga ne ko mais ku dul saaga fii waaw man damaa vulgaire man ma fi di jaay nit non fii am na kilifa yoo xam ne mais dañuy saaga ñoom dañuy saaga man daal man daal am solo daal fu may jeexalee mooy maa ngi euh, jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp te wax dëgg yàlla euh, di ñaan aussi mooy yi ñu commencé nii ndax boobu waxu waxuma ci woon damay ñaan rek ne Euh, euh, Ousmane Sonko euh, laa sama dernier kàddu moom laa koy jox